réew dafay torlu à des moments historiques boobu la ñu toll. Les TV. jërëjëf jëfati mbokk internet yi tey laa juma fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril 2024 ak jàmm ñu fas yéene ñëw ci xibaar yi njëkk ci bis bi doore ki nga xamante ni moo di Mamour Diallo mi nga xamante ni Ousmane Sonko da ko fay tuumaaloon kat wala ji ñoon ko fi sax li nga xamante ni moo di 94 ba tax na mu déposition li nga xamante ni moo di ab enquête

yooyu nag mën nañ ne si jógewum si benn euh, suuf boo xamante ni moom lañ ne moom lañ tumaaloon ki nga xamante ni moo di Mamour Diallo ne moom mii kat moo ko lubaaloon mu tolloon si 94 milliards nekkoon xaalis boo xamante ni nag mën nañ ne bu takkoo takku la woon mën nañ ne kon ki nga xamante ni nañ ne jamono ji nag li nga xamante ni moo ko yor nag neexul benn yoon waaye ki nga xamante ni moo di OFNAC nag rapport bi nga xamante ni génnoon na ko fan yële ñu génn daal jébbal na ko ki nga xamante ni daal moo di procureur pour mu def ci li nga xamante ni moo di ay enquête